saa su ngeen di wërati xibaar bu gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw leen gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su ne fii si Daaru Njaay TV waaw sëñ Cheikh Daaru Asan dëkk bi ñuy wax Touba Aliya liggéey ba ci fi fekk ko ci penc mi ngir yeesalaat ak rafetalaat ak balé muy lu am solo loo xam na di yalla kawena kawena jot lol waye ñi ñëw ñewaan nañ xertel bu am solo fajj ngeen feccan seen yene ci digënté ak ñom ak Cheikh Cheikh Moustapha ak digënté ak seigne daro ak Cheikh Mor Fadal waaw ak seigne Bay Fallo ñëpp di yalla yàlla lu am solo la suñu soirée nee na ngi sant bu baax baax li ngeen def am solo lool ngeen ñëw fekk ñu fi ngir ñëw yaatal liggéey bi bex fi fi ngeen jógee soirée na lool waaye ñëw ngeen ngir ngir jàpp ne xam na lépp benn la loolu sant na ci bu baax baax lii rek mooy mooy mbir mi murit moom xidma moom lu yaatu la ci ci ci yoonu murit xidma te léegi ci xidma la bokk te nag ñu ngi sant bu baax baax jërë ngeen jëf ñu leen sant bu baax baax di leen ñaanal bu baax توفيقك تيسيرك بارك الله القديم بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوك جيني دي بوك طالبي غيناو نيو بوك سيار بوبو دي بالي داخ بالي داخ نيانا شيخ منتخا البصير برام بي كاتنال ديكو نيانا شيخ عبد القادر مبولاج مسا جداي سين درسال مسلم او فانت باركيا واي داولي يالا واتي يرمان سين كاو دي rafetlu jotaay bi di sant baax wa Darou Ndiaye TV ci njita sëñ Moustapha Guèye ak mboolem ñu andal commission communication bi ci jotaay bi nga xam bobu boobu ñi ngi and ak mbolo mi diko couvrir mbolé image yi ñi ci diaspora bi ñepp ñi ngi koy suivre diko gis liggéey bi macha allah mel na waa Kër Sëñ Rasan su fekkente ne ndigal dafay wàcc Serigne Touba khadim Rasuul ndigal lolo mom da fay melna ñom bu leen te gis rek mu lolo moy li war ñak leen te gis nak lolo mo wara nek lo xamne dafa wara jaaxal ku nek mu melne ci bir ndigal li jangal nañ ci ne daru ndjay information lu mi yéex a yéex ñew bu xasse ba jog rek deug na gis ne jog nañ da bo xolé sur bu njëkk ba bi ñuy commencé mbooloo bi dafa neewon lool muy naaj mbooloo bi di bari bañ liggéey liggéey bu gëna bo xamne dafa kawé njor lool nak war nañ ci jangal lu bare bare bare ndax li ñu def da naka moy magal ndax su fekkee dekk bi setul magal gi ko la wax mën wax neexna da fay wax rek parce que nit ki mom pour mu tal dara fay nek ci condition yu bax yu set ndax sunu borom sax dafay wax ci alxuraan ne moom ku teey la ku sel la te du jël lu dul sell inna laa yuhibbul mutawaabin wa yuhibbul mutatahhirin yàlla bëgg na way tuub yi waaye bëgg na way laab yi ba tey boo si delluwaatee ci xasida ak Matlabul Fawzayni sëñ bi yàlla da koy may ba pare na ko bindal li ma la may dajaa wax ne wala yeesu xayran alalin tayibi wa xayra jiraanin bi xaqi bi yow sunu borom maa ngi lay ñaan dëkkandoo yi gën te yiw am dëkkandoo yi gën te yiw nga kon ñi yiw te set ñoom la Sëriñ ñaan kon sëñ bi dëkkam bi da koo gën a lépp ganam yi di ñëw kon muy dëkkuwaay yi muy dëkk bi képp koo xam ne yaa ngi koy setal yaa ngi ci li Seexul Xadim gën a bëgg te nit ñi ñooru delluwaat ci histoire sax waaye màggal gii nga xam ne moom la ñu wees muy Itrina Muharram mbale moom ñaan def wax nañ ne mbale mi Seex Mustafaa al Karim yi daan jiite li mu daan njëkk a bale ci ci ormay Touba boo balee ci yére boppam lu koy ëmb te moo daan njëkk a yor bale di bale te bale ci yére boppam lu koy ëmb ndax sëñ bi bi des ko war di dëkk bi faaw ñoo xam ne daara la léegi nak mu lan wa kër Serigne Assane wa kër Serigne Assane dañu am ab taxawaay bu baax ci yoonu murid rawatina fi seen buntu moy Daarul khudus ndax ben am nañu mbolo am nañu ay xalé am nañ ay mbolo mu nangu mo xamne mu nakare gis la mo xamne man nañu xey suba ba ngoon maanaam duñ am dara lay war tax ñu yokkat ca bo xolé li lay xamal ne wut leen jafe te am nañ liggey bu reuy moy yaa commencé parce que yow Daarul khudus nga commencé ñew ba Aliya kon dafay mel ne bu amoon kuréel gu mel ne yow fii doo fi agsi bala nga fi agsi da nga fekk liggéey boobu dem waaye su fekkee da ngaa mën a jógee Daaru Xudoos dox ba aali di toon ni mbali am ci ñetti fan te amul fenn wax da ngay ñëw fekk ñu toon ni ko kon da gis ne effectif bi nga yore effectif mel noonu gis ñu ko yor ci biir mbooloo bi kon loolu dafay mel ne kon la Serigne Bassirou wax ne kaana Assane Ndiaye sawaa man xawaa man ba bay dee jeex di wax ne moom kat jaamakatu yàlla ko an war waaye di tàtte ko ne ku bari mbooloo la ku bari taalibe la loolu sëñ Bassirou moo ko bindoon léegi sëñ Bassirou ba ne ci jamono moom moo bind sëñ Dërësan ku bari mbooloo la jamono jooju fekkee Sëñ Daaru Asan junni nit la am da nga jàpp ne heure bi kon mi ngi am kon fukki junni doomu aadama mi ngi ko romb ndax loola yàgg na waaye mbooloo ma nag dañ leen a xam ci nangoo liggéey ak jaamu yàlla sëñ sëñ sëñ Basiru moo bind ne sëñ Asan ni mel da cee wàll am mbooloom tey liggéey bi li tax taalibe yi am ci fa séef boo ñëwee ci biir liggéey bi yaa ngi gis ñoo xam te ne ay direct sëñ Daaru Asan lañ dootuma ay mbokkam rek ko ne ñu ci biir mbooloo mi nekk ci liggéey bi di liggéey ñi yor communication bi ñii di maye ndox nga xam ne booba léegi ñu accompagné mbir képp képp la ñu gis mën naam sax demee nii doon taalibi ñoom xaw ñu sëñ bu ñëw bu ñu ñoom nga gis saa ñu joxee ndigal taalibe yi ak sëriñ si doo mën a xàmmee dañu nekk ci biir mbooloo bi di liggéey loolu ab jàngat la lañu war a bàyyi xel la ndax démb rek maa ngi yaakaar naa benn waaye moo toog la ñaan ko si xéwal maa ko man li ma gën a yéem ne saa bu yi ni amee xalé bu ndaw lum tuti tuti tuti da ngay gis mu tak ak laxasaay nek ci biir ndigal démb yalla xam benn ñaan xalé bu tuti boy bi ñu tol dama sonal ci suba fa lañu ñu tàmbale ak fi ñu tasee xale bu ndaw ma ne ko léegi daal suba da ngay fexe ba fii nii nga ñëw fi wala nga xaaj ci kaw tëli bi te nga xam mom amna ci yéen amna ci bëb doon sax mu waye mom mi ngi am problème suba rek fa lañu war tassé nga gis ne lool da fay mel da fay da fay tej ñom ñëpp bo ñëwaatee nga xol jigéen ñi bo ba léegi fu góor ñi teg seen tank nek fa teg seen tank ñëmu ci mbaye ndox waye ñi ngi jël seen saako xar ko nga xam lepp ci liggéey rek na ñom ñoko yor ta liggéey mel non nga gis ne jigen da daan ci yenen way dal ah, sëñ Darou Assane daal référence la ci bir daru Ndiaye am nañ ci dal ben marque bo xam ci ne sen sen yeungu ak sen juk sa bu joge ñëpp gis len kon na dañu man dal la ci ciy ci wax ngir ñi ci bir daru Ndiaye TV ñoo xamne dal ñun ndigal li comme safar sa bu wéri feñe dañ koy balé ñun wa daru Darou Ndiaye waratuñoo xaar manam information manam kuy ñew bir daru Ndiaye ñu wax naan bale bi am naa balé ñun kay li war dañ am programme arrêt bu jot mu ñu def mbalé ñu ko réussir da am mu jot moom ñi bale da Touba lañ dëkk té murid lañ ko diggal té murid nak seen dool dara ñu bolo nek ben waye dama gis nak ñaan Serigne Touba mo nangu ci wa ka Serigne ya rabbi ij'al muridina ma fi isnika al-azina wa samla ijmaha loolu moom yoonu murid buñ ko déggé buñ ko déggut ñaan googu mom bok na ci ndax mu gëna nang nangu wa ka Serigne Dara man bok na ndax mu gëna nang nangu buñ digal luñ dem buñ fa ñëwé nga xam ñëw nañ te sax borom bil bi na wax mooy fa mu demoon fekk na ñu ne kuréel gu néew te jubawul mu ne leen yéen jubawu leen amu leen mbooloo maa ngi dem ci ñu jubóo am mbooloo te moom bokku ci ñun te bi nga xamee yëgul waaye ñaari fan la ànd ak ñun am tawarte ñëw fi ndax ñoom bon la booleeg ñoom yow ko yaay demam yàgg yow mi yor oto benn nga sonn wala mënatoo waaye ñoom li fii yaa ngi ànd ak ñoom buñ ba ba ba tibis dañu nekk ci waar wi loolu nag ab bind la ab jàngat la ñu war a gën a taxaat laxasaay yi war a gën a soññaat xale a a nàmbatal nit ñi ci kër sëñ Darou. waaw commission culture bi nga xam ne yàlla daa def ma nekk ci bopp bi ci tamuy lo xamne wa xeyna mbolo mi ñom seenu bax rek waye borom xam-xam yu bari ñi ngi ci biir mboole waye nak lepp lo gis mënut ñak njit njiit mel na ñun mom ba année bi jexé rek ñu ne déwén mooy centenaire bi sun plan d'action ñun wa commission culture nga xam ne jébal nañ ko bureau communauté directeur bi xamna du jom nañ ko jébal bureau fédéral bi dañoo bëgg centenaire bi mom ku daan dégg seen dorotan bo ñëwé da nga gis image da nga gis bind da nga gis journal bo yobbu manam dañu bëgg manam centenaire bu mu àgg ci bisba manam ñun mom lepp sëñ dërsal lañ ko jëmale journal bi ñu bind sëñ dërsal lañ ko jëmele exposé bi sëñ dersan lañ ko jëmele atta ba ci thème bi sax dërsal lañ ko jëmele lool da képp ku fa ñëw mom da nga man sëñ dërsal waaye nag lu jiit loola bëgg nañ ay plateau yo xamna ci ne dañ ko amal ndax sax bo gisé waxuma la ñun waaye nit ñi sax ñi ngi sàkk xam ko sëñ dërsal ndax tay ji yaakaar naa mercredi fekké né man nanguna wa waa i rajo ñi leen nekkal fi ci mbacké Bawal ñi ngi sàkku ci man ma waxtaane leen sëñ dërsal ndax dañ maa joxoon ñaari thèmes mardi ma waxtaan sëñ mu dew paxa mercredi ma waxtaan sëñ man leen mardi dama ci am man na naa am ma ñëw waaye joxaguma leen seen kàddu waaye mi te ñoom bi ñu waxtaanee dañoo dañoo bëgg xam ñu topp na naa ne xamaguñ ci moom lu bari waaye ko te bëgg na moo tax ñu tànn ko bokk ci njaboot gi ndax fekkoon na li tax ma xam ne loolu bëgg nañ mooy sëñ mu jappa xam-xam ñu bëgg waxtaan ci man bokkuma foofa waye xayna ñu jort ne man xam naa ci dara waye ñaar thèmes yoy lañ ma tànnaloon li ñu gënoon bëgg sa dañu dañ maa njëkkoon a proposé ne ma dañu bëgg dira safar gi ba magal gi di ñew bu set nga ñu benn cheikh man leen loolu baax na waaye su ma sañoon bu ne da ngeen dem ci ña ca bokk ndax yoonu mourid dafa bari ay ay ay ay ikhtilaf ci ay histoire te man histoire yalla man do ci parparo nim mu nekk rek noonu la ko indi xayna man ngeen tan kenn ci kër sax ma xam ci lu mu ci xamul waye dal bo sañon ngeen bayyi non ginaaw bi lañ ne ma kon bu sañon nga indi sëñ mu jaw paxa ak sëñ Dara Sane sëñ Dara Sane moo war a nekk mercredi moo leen joxe seen kàddu kon day gis ne kon sëñ Dara Sane moom yitteel na nit ñi te bari nañ ñu koy dégg ñoo xam ne xëy na at yi liñ ci xamoon xamuñu ko léegi nag commission culture moom li mu bëgg dafa am loo xam ne waa Darou Ndiaye TV ñoom ñoo ci jàpp mooy ñoom saa bu disponible ba def seen programme seen i plateau bis buñ ko jàppee waxtu buñ ko jàppee dinañ leen jox élément boo xam ne la muy wax sëñ Dara Sane ku ni xam lay doon te lu muy xam sëñ Dara Sane kon ñoom mi ngi des ci ñoom rek plateau yi nga xam ne ñoom ñoo ngi koy ñoo ngi koy organisé su fekkente ne ñoom dañoo lëkkaloo ak rajo yi pour ñu am fay émission bépp rajo wala bépp télé boo xam si ne war nañ fa waxtaan seen dërëtan daan fexe ba ko xam du wax waxi daanu kat du wax ay waxi jaayil ku xam seen mu ànd ñoom dem ci plateau ba waxtaan fa seen dërëtan waaw jeexantalu liggéey bi taxawaay ñi ci wàllu xéewal liggéey yi mel nii wamate buñ soññee taxawaay bi ñu war a amee daal comme kilifa yi moom wéy nañu kon ñun ndaw ñi xam ne suñu moom lañ tombeel taxawaay bi ñu war a ci liggéey yu mel nii saa yuñ fi accepté waaw bi ñu ñëpp sant leen gërëm leen Euh, comme ni ko sëñ bi jëm waxee liggéey bi am fu mu dafa cosaanoo ci Serigne Touba Serigne Touba euh, Serigne Deur maanoon ak moom nekk fii ci Darou Khoudoss mu yeewi Serigne Deur sëñ Dasan ñibbi bi Serigne Dasan ñibbee moom moo woote moom sëñ Dasan mag yi njare yi ñëpp dama wuyu ko ñun ñu wuyu ji woon suñu maam caa bokk mbir mi du rogalaat tey kon ni ko loo xam wax ne ñun lañ ci bokk kon ñun ñëpp dañu xam ne ca cosaanu sëñ Dasan loolee mu woote woon démb ca njare seer ba tey loola moo ñu topp kon liggéey bu ñu ko bàyyee kenn nañ ci nekk suba ak ngoon guddee guddeeg bëccëg rawat na ndaw ñi ndax mag ñi moom euh, def na li war a def ñoom pare donte nag wëcc ñu ñu ngi ci liggéey bi nam na bi waaye ñun ndaw ñi ñoo war a fippu génn taxaw liggéey ndax waxtu ne suñ darasan ñun ñëpp la suñ deret di yëngu ñu jàpp na suñ darasan ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko moom nga wut rek yem ca aw làmmiñ wala boo toogee fee ñu tudd wala kenn wax baaxam nga ne cey suñ darasan da ngay fexe ba jëmmal loolu ndax jëmmal gi moy ni ko ma kumba waxe su ndigal joté nga futti ko taxaw jëfé ndigal ba ndigal li mat sëkk bam mu jeex nga delu ci kër ga togar xaar ndigal loolu ñun ndawi kër serigne Daaru Asan yëpp ñoo war ko taxaw ci loolu jaarale ko ci kurelam bi tuddu jamaat Ahibaayu Cheikh Lassane ndax man dafa bok lima gëm te diko wax moy bu del si woon tey jii Ahibaay la mëna tek loxo ne lii maa lu ba fekk neen donte mom mom lepp kon nañ ci baye xel baax ba ñun nak nekkon nañ ci liggéey bi and ko suñu jëwriñ Serigne Cheikh Marie Mabsa ci organisation bi diirub ñaari fan ñu ne ci togg ak tàngal kafe ak mayam ndox ndax loolu day wàllu wax si wàllu organisation la bi mu ñëwee nag xëy na ñu gis na le reñ bari a ci wàññi ñenn a seetlu bale bi ñu bari ci organisation yi ñu ngi woon ci bale bi waaye dañoo tànnoon lenn ci mboolem lu néeru ñu ne ci wàññi nekkoon di taxaw togg ya ak ak di toppatoo loolu ba xéew ba xéewali sotti loolu tamit nekk nañ ci suñ kémtalaay kattan ba xéewali sotti ci diirub ñaari fan ñu yóbbu ko yët ko yët ko mbooloo mi loola li ñu ko a may mooy ñu nos buñ bokkee ci kuréel nos mooy tax lu xew ñu mën caa nekk waaye li ñu xam ci mbooloo mu dëkk ci tubaab yi wala dëkk dëkk bi te ba léegi nii bokkuñu ci liggéey suñu asan bi loolu daf ñoo jaaxal lool te ñu ngi tool ngi toll ne suus ta léeg ak yeen santaane am ñu gën dem ci ray ci seen bop ñibisuat ta loolu war nañ ci xalaat bu baaxa baax loolu nak ñu ci soñ ñepp ñëpp rawatina gone fu ne ci biir réew ak bitu réew ñu xam ne lenn rek mo mo ñu mëna jariñ tay ak ëlëk moy li ñu yalla booleel muy señ Jasan ñu futti ku liggéey ci taxaw ci taxaway bu wér loolu laa ñu ngi koy soññ ndaw ñi goor ñi mag ñi ndaw ñi ak jigéen ñi ñu bàyyi ci xel baaxa baax di sant baax di gën di sant baax wa doon jay TV dama koy wax bari ku seetlu fan yi da nga gis information yu leer yu tégg ci ay yoon yuy génn ci Daaru Njaay ba dara umpatuñu ci dara te loolu nag dañuy wax ne lu yéex a am la la ñuy jooy waaye am gi jooy ñu kon nag nañ ci gën a góor go gën cee bàyyi xel ba waxtu na lu jub si comme niñ ko defoon ci màggul Daaru Xudoos gi ñu defe ko noonu ci édition yi ci kanam ngir lépp mën a leer ndax suñu desan liggéey lu réy loo xam dañ ko war a wane waxtu na saa su ne ñu ngi jégal wax ci kàddu gi wala sëñ Mouhamed Ndiaye mhm. bu sëriñ Cheikh Fassila Ndiaye xéwal bu Cheikh Mbaye bu sëriñ Daaru Assane Ndiaye maa ngi yëpp waaw te di leen dégge gannaaw bañ sante Cheikh Moustapha Mohamed mu tedd mi waaw ñu leen di déggee ñëpp waaw te di xamle nag ne amul lenn lu gën a am solo liggéeyal yàlla ñun nag ñu am cër bu toll ni Serigne Darou Assane nga xam ni ku tedd ki nga xam ne li njaboot gi bari bëri li taalibe yi bari bari li nit ñi bari bari lépp mu wax ci kàddu gu gën a kàddu goo nga xam ne si ni jaamu yàlla dañ ko bàyyi xel muy maanaam ne bu fekkoon ne am na ku may dab Serigne Assane Ndiaye mii la ci gàttal maa ko tënkee noonu sax waaye amaana kiiwul noonu maanaam loolu cër mënu gën koo màgg bu toll ni sëriñ Touba mbooloo ñi ngay gis ñëpp ñëpp Serigne Touba la ñu fi wut kon loolu noonu loolu noonu rek doy na doy na doy na ab soññee ci ñëpp képp ku ci bokk moo xam nga ngaa demoon feneen ba mu yàgg ngay doogaa ñëw ak ñëpp yaa ngi dégg waaw loolu loolu ab soññee la loolu amul amul leen luñ so kenn ku dégg loolu sa nopp rek war ngaa gën a takkaat sa laxasaay waaw ñu fiy dégg ñu naan sëñ Mbaye Fallo fii la dëkk si Daaru Ndiaye ñu naan sëñ Ousmane Ndiaye fii la dëkk sëñ Fallou Ndiaye te kenn ku nekkuñ si jàpp sa taarix rek waaw da ngay da ngay yéemu da ngay yéemu da ngay yéemu waaw góor yàlla góor yàlla yu màgg a màgg waaw kon loolu loolu lépp rek ay soññee la yu mat a mat sëkk yoo xam ne maanaam ndaw ñi dañ cee war a bàyyi xel asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi Serigne Mbaye Fallo général Serigne Darou Hassane mooy nuyoo bu baax benn xale bu jigéen bu réer di sant yàlla bu baax nafu jaare képp koo yàlla doole nga gis ko nga di ko fii ci rajo di soññi mboolem taalibe ci liggéey bii nga xam ne si Nabou Ndiaye taxaw ñun waa Kër Sëñ Darou Assane Sarr Nabou Ndiaye bu fekkee yaa ngi dégg suñu kàddu képp koo xam ne si taalib Nabou Ndiaye bu fekkee mi ngi dégg suñu kàddu dañoo fii mën a jàppate ba dégg ci oto bi dafa am liggéey wër na nga ko bàyyi ñëw ci liggéey bi ndax amuñu lu dul Sëñ Darou Assane te nag wax nañ ko ca jotaay ba léegi ñun waa Kër Sëñ Darou Assane leen rek lan ñu xam ne ndigal kon képp koo xam si déggati nga ndigal jóge ci Kër Sëñ Darou Assane ak koo mën a doon loo mën a jàpp na nga ko bàyyi te ñëw te xam ne kat yëf yi ci ndigal la ne kon saa su ngeen di wërati xibaar bu gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu Serigne Darou Assane Ndiaye gaaw leen gaaw ngeen abonné si Darou Ndiaye TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu yi ngeen itteewu Darou Ndiaye TV di leen toppal lépp luy information heures sur 24 gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su ne fii si Darou